won yoon kon ñet ñooñu fu ñu daje ñaar ñi ni nga xamni ci seen jëwri ndax kee la waxal waxut ak ñaar ñi ci dess ki mo waxal nak mo wara wax ak ñaar eh? fa fekk mbolo murid ñetti murid yoy nga fa faaw nak no leen di ràññee ci teer nga leen di ràññee moo tax bu fekkente ni fekk nga mbolo lu baax rek tax la jug ci yene ba wax wala dox am ku ko gisee nenen ba bégu ci bul ci hmm. da ngay xol ci ban ban ci ban catégorie mourid la bokk noonu itam la sëriñ si mel fi ñu wal wàll yi itam non lay mel fi ñu toll ku tedd ki man nga yore sante wi ñu tudd la sët bu jege mba bu xawa a sore yëpp waaye catégorie yu bokku ku mel man nak mo leen di xam waaw moo leen di fi ñu toll nii ñi ñuy tudd di ñu jox leen sante wi uh-huh. ak ñi ñu joxul sante wi te jox leen sirru sante amul kenn ku ku tedd kii def jëwriñ te du jël sirru mbàkke def ci soo sant am waaw te jël sirru bi bu jëlee sirru bi def ko ci saw sant nag mhm. am na ñu yor sant wi te sirru ba ku te borom Sëriñ Tuubaa daf koy jël mhm. nit dina sant mbàkke ba noppi tëkku la ba noppi te fekk tëkku gi mu la tëkku moom ci boppam bu delluwul ginnaaw moom mooy gaañ mhm. waaw ndax ku tedd kii da dul mbokk li mu yor daf ko jënd ba mu jar mu koy jaay mbàkke wi dangay ngay mbàkke yi sant wi mbàkke mooy vingt deux vingt deux boo duggee avion di wàcc ñu ne la temps baa ngi ci vingt deux mooy not so bad mooy tàngul sedd mooy temps bi gën mooy mbàkke mooy victoire ci biir ak ci biti vingt deux boo ko xàjjale mooy onze fii onze fii mooy ndam ci biir ndam ci biti mooy mm. mbàkke mm. Mm. dafa am sirru nag dafa am sirru sirru bi da koy def ci faal def ko ci jenn def ko ci jóob def ko ci gajaga def ko ci jaxate sant ko neex la koy def <laughs> def ko ci mbaw <laughs> waaw moo tax faw ngay ràññee nag waaye bu ko defee ku tedd ki day bëgg koo gis rek nga defe ni moo la gën moo la féete ko yal nekk ci suuf rek koo gis rek defal ni moo la gën bu ko defee doo juum loolu trompe kenn du la trompe koo gis rek defe ni yaa war a nekk